waxtaan bàyyi sama délégation sa ma ba may dama leen wax damay jubal kus su ma demee kus dama bëgg su kusa suuf sa tàllal loxo sant bàyyi si li mu defal islaam sant bàyyi si li mu defal delluñu sant bàyyi si li mu defal Afrique waxtane ko jërëjëf bàyyi tàllal ko samay loxo te yàlla def na ni loolu laa def voilà toog ba ñetti waxtu ba ma xëyee maa ngi dem seeti suma papa suma sëriñ seen Cheikh Tidiane man yàlla daf ma boole kër gi ma sopp leen yàgg na sa sëñ Ablaye la woon ma doon avocat ndaw di ñëw kaw la lu sëñ Ablaye xewle ci njaboot bi man lay woo su paree jël enveloppe jox ma ma ne ko dimbali ma ñaanal ma sañu ma jël sa xaalis bi ma ko sañoo jël sama sëriñ sañu ma ko jël si yow sa ñaan laa soxla yàlla def sëñ daam ñëw moom it jël taf ma si xolam sëñ daam sëñ siir bari ki démb rek si màggal la dafa ñëw sama kër ñëw ni ma kat ñëw naa ci sama diggante ak yow waaye damay def kóllëre sa daam si yow sëñ bër gi démb sëñ arab bi ne yónnee ak délégation bi sama yaay wàññeeku lu ma xew la mu yónnee si man kon loolu lu am solo la sama digganteeg ak sëñ Cheikh ñëw koo wax nañu ma dikke xalaat sëñ Cheikh la mu defal ma lu rëy roi de Zender moo ko may fas wu rafet mu jël façon nit ñi bii ma dikkee laa koy jox bëri na ñu a si saal bi wala fii ñoo xam ne ñoo ma indil teraanga ba ma ko indilee si ëllëg sama dem si sëñ Cheikh la lay ñaanal togg ci ay fan doon ministre de l'habitat doon na fukki ak nii kon la sëñ Saliou seetoon ci jëf jooju tey nañ ci jëfu sëriñ Cheikh barki démb laa jóge sëñ Cheikh mu doon nit ku baax nit ku am solo nit ku yiw nit koo xam ni yërmande